mu ne ma defal ma tonifiant parce que dama yàkkamti mën na ko kon tonifiant de vingt mille francs la mu ne ma waa d'accord ci la ma jox vingt mille francs bi man dem jox ko ki nga xamante ne mooy sama patron ma indi huile bi nga xamante ne moom lañuy ñuy maasee indi serviette tëj chambre yi taal ay bougies tëj chambre bi ba mu commencé simeeku le temps que may débrancher table bi muy simeeku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 ngir yàlla rek bàyyi ma parce que maa ngi bëggoon def la tout pour échapper mën na ko ngir yàlla rek baal ma ci pour beneen yoon sax boo ñëwee au moins ñu pro parce que man xaw ma góor xaw lii yëpp ngay def mu ne ma dangay fen après si ma xëj ma lii ma ci ginnaaw jël loxoom dugal ko sama biir awra awra gis ne li ma ko wax dëgg la mu ma laa ci ma donne envie de parce que lii mosuma ko woon xalaatee si jigéen yoo xamante ne dañuy lii nii dañuy maase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 à nag yow yaay fay yow laay après yow yaay fay les pots cassés te yaakaar naa ne doo jël risque seen waa kër xam ne ci massage nga nekkoon bañ lay dévierge mu def lu muy def daal di génn ma teg ci cinq jours parce que mënatuma woon toog foofu wax sama patron damay dem suñu dëkk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 dama bàyyi ba xam ne sama patron dem na si beneen cabine bi ma woote ci fii bi ne ko ana ana Fina mu ne ma ne ko fi mu ne xaaral ma profitoo dem ndax balaa Fina di ñëw ma dem foofu noonu jël samay bagage jour boobu sax maak ak fii ay guddi laa fa lii ay ci ngoon sooy laa fa dem toog foofu ci ay clinique boobu yëpp Fina mu ngi ci cabine bi daa ñibbi woon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 parce que dañ doon def ay massage corps à corps dañ doon def massage deux pièces doon def lépp foofu noonu mu ne ma yooyu yëpp amatu fi massage corps à corps cuuñ amatu fi deux pièces amatu fi yéen yi fi amoon yëpp amatu fi léegi tonifiant la ñuy def relaxant savonnage ak jacuzzi mun na ko jacuzzi bi mu ngi am ba léegi ci jacuzzi bi des fois da ngay tase koo xamante ne lay làmbatu nekk ci biir jacuzzi bi def tuuti di la làmbatu mun na mënoo ñëwal fii nii sax léegi weer laay fay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 boo bëggee sax mën naa dem mën na ma yow fooy dem foo ti dugg si àdduna dinaa la gis ne ma yow da fàtte li ma la waxoon ne ma yow parce que mësuma gis jigéen bu mel ni yow fi ma jaar yëpp ci cabine yi ma jaar yëpp mosuma gis jigéen bu mel ni yow. sama vie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 wax ki nga xamante ne mooy sama frère bi pour pour mu ñëw jël si ma ñu dem hôpital bañ demee hôpital tamit ñu def ay prélèvement docteur bi ne ma ndax da nga doon jël ay pilule ma ne ko déedéet mu ne ma mu jox ma beneen pilule ne ma beneen lii nii bindal ma ci feuille ne ma tu risques de tomber enceinte wala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 <laughs> je préfère garder loolu pour man. bi. lu tax jiitu woo ci police avant ngay njëkkee prélèvement Grand Yoff parce que d'habitude procédure bi loolu da ngay dem ci yoon yoon yóbbu ci euh, orienté la un hôpital. instant boobu mu ngi nekkoon mu ngi. toll woon waaw waaw d'accord léegi dem directement hôpital est-ce sama frère bi comme ni ma ko waxee woon rek balaa ngay dem police ou wala ngay dem gendarmerie il faut nga yor ay preuve moo taxoon ñu décider dem fii nga xamante ne mooy hôpital Grand Yoff. li Ahmed Mbaye. Mhm. mën naa wax ne mën naa wax ni sax ndey bàyyi rek lañ bokkul.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 li mu mënta am ci ay jabaram a am. waaw parce que lu mu déclaré biir këram la moom dafa déclaré ne ibaadu biir këram alors que non moom lu mu bëgg a dund mënu ko dund ak ay jabaram lu mu lu mu déclaré biir këram ak moom lu mu doon si diamétralement opposé. loolu woo ko sonaloon. Aïssa est-ce que xam nga xam nga ni viol jusqu'à présent. xawma ci dara.